jërëjëfati bokki julit yi bokki taalibe yi ñu ngi nii jàkkaarloog sunu waajur sunu soppee sunu xarit sunu bàyyi di lépp ci yoon wi ci nun mu di sëñ Mbay Ngiraan di jàmbaar joo xam ni wax ni bu àddoo murit yëpp dañuy bég waaye dañuy gën a bég kon nag bu ñu toogee at bii nga xam mooy atu maam Cheikh Rahma Fall di jannatu Mahwa bis bi fàttali ko maam Cheikh Rahma Fall àllarba le 4 novembre 2020 fukki fan juróom yaar ciw gàmma ngërëm li nga xam ne Cheikh am na ko ci sëriñam ba Serigne Touba Cheikhoul Khadim ca Daaru moo di kat tey jii kon xam naa ci tënk rek nu bàyyi sëñ Bay Ngiraan mu andi nu tudd rek fàttali aslëf ci jataay bi kenn koy waateel kooku mooy kan ci yoon wi Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaw jërëjëf Cheikh Ibrahima moom <clears throat> yaakaar naa ne kenn umpaleetu ko xanaa li nga xam ne lépp làq na ko door a jaayante ji li addina di bàkkoo lépp ñuñ adduna ñu baax ñi li ñuy bàkkoo da ko làq ba noppi nag door a wuti ngërëmal yàlla li ci jëkk mooy juddu bu rafet ci Cheikh Ibra la mën a yem ndax moog sëñ Tuubaa bokk nañ menn maam ci Abuu Dardaa yi te juddu bu rafet dañ koy bàkkoo mu boole jolof ak kajoor yaayam sant njaay di kilifa ca jolof baayam sant faal di kilifa ci kajoor judd bi rafet lool mu bokk ci li nga xam ne réew yi dañ koy damoo muy judd bu rafet la ca tege mooy alxuraan ju rafet nga ñu bari dañoo yaakaar ne Cheikh Ibra dafa jàngut ah kay Cheikh Ibra dafa jàng ñun amoon nañ mbindum Cheikh Ibra sëñ Mor Mbaye sama sang ba am na bis aw nit toog fa bari lool muy waxtaan ak ñoom ci Cheikh Ibra ba yàgg mu génn mbindum Cheikh Ibra am lu mu ci génne wane ko ngir nit ñi barkeelu ca waaye kayit wa daa àgg ci koo xaye moom ba mu àggee ci moom da koo wan kooka nag tooñ na ñaari yoon. ndax mbind ma moom duutu nu ko wane dañ koy denc te ko ko wan kon tooñ na aw nit mu man alxuraan lool man xam-xam itam te loolu bokk na ci li nga xam ne ñu baax ji moom lañ daan damoo ab juddu man alxuraan man xam-xam waaye teg ci am wërsëg wu yaatu lool te bari waaye teg ci sa jëmmu doon jëmm joo xam ne ku ko gis rek bëgg ko te ku ko miin doo ko mën a bàyyi ngir lan jikko ji dafa rafetoon Cheikh Ibra mu boole ci yor jikko ju rafet makaarimul axlaax te makaarimul axlaax sëñ Tuubaa nee na mooy tax a am ngërëmal yàlla nee na soo bëggee am ngërëmal yàlla sëñ Tuubaa fexeel ba tax taxoo ak makaarimul axlaax yaa taaliban ridal xalil xalaaxi laa sim ma makaarimul axlaaxi sëñ Tuubaa ne yow mi bëgg am ngërëmal yàlla fexeel ba taxoo ak makaarimul axlaax mooy jikko ju rafet fa bil makaarimi takoonu taaira kama bii taxloo dawaaman xaaira ci jikko ju rafet ngay sata wecc doon leer waaye ci jikko ju rafet ngay kowe kowe gu sax ci jikko ju rafet la lay ñëpp di nangule ci loolul xeex ak xuloo jikko jooju daa nekkoon ci Cheikh Ibra loolu lépp nag mu boole ko jaay ko topp Serigne Touba laxas takk ndigam di tërbiyewu Serigne bi ni Serigne Touba def yonant bi noonu la Cheikh Ibra def Serigne Touba. sëñ Tuubaa daa jébbalu ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu muritu ko moo ko bindal boppam du waxi murit sëñ Tuubaa bind xalimaam ñi ne awalu mubtada bil xadimu taaluqan bi man lahu taqdimu wa asal xidmata ama jëy sasi waxal boo almaraha min asasi sëñ Tuubaa nee na asas laa jébbalu ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy bi gàddaay gi amee junne ak ñett téeméer ak fukkat ak benn waaye jasas nag laa takk sama ndigg dem laxasaayu ji dem muritu ji mooy bi muy dem ci géej gi ne dama doon muritu ji loolu mu def nag sëñ def ko defal ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lay Seex bi Faal defal sëñ Bamba Xaadimu Rasul ba am ngërëmal nag sëriñ Touba ci bis bi ci Daaru Salaam di bis bi sëñ di dëkk bi sëñ Touba jëkk a sancal boppam Daaru Salaam mooy kër jàmm mu sanc ko Daaru Salaam mooy jàmm gën muy kër jàmm moom la jëkk a sanc dib dëkkam fala ko ne ko am nga ngërëmal yàlla waaye bi mu ko wàccee taxul seex Ibra moom wàcc Cheikh Ibra musta wàcc ba bisab tey jii sëñ Cheikh jëmb ak rakkam yeeg doomam yi wàccuñu ñu ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ba bisab tey ba mu amee ngërëm ba noppi mënoon naa dem toog waaye dafa fedd liwaat laxasaayam musta dallu mu dem ndar ci ndigalal Serigne Touba Xaadimu Rasuul <clears throat> ndax booba ndar mooy buntu Sénégal ndax euh, capital mooy buntu am réew te booba ndar mooy buntu Sénégal mooy capitalu Sénégal sëñ Tuubaa xam ne mi ngi ñëw ndar moo tax mu yebal Cheikh Ibra ndar mu dem ndar liggéey fa liggéey boo xam ne benn liggéey mënu koo féete kaw ci saayir ak ci baatin ndax bi ñu yóbboo sëñ Tuubaa ci géej gi Cheikh Ibra kër këri na lu ngir bëgg a xam fu sëñ Tuubaa nekk ci géej gi lu ne mu daj ko kon bañ ba mu ko wàccee itam taxutoon mu wàcc bis bu ne mi ngi liggéeyal sëñ Touba ci guddi ak ci bëccëg yi ci saayir ak ci baatin ba tax na am na benn melaatar boo xam ne dipp Carpol tudd mu doon def euh, wote ngir meeru Ndar ñëw ci Cheikh Ibra seex Ibra boole kooku Mor Fall Fari moo doon bàyyi général Fall doomam doonoon général ci armée Sénégal bii ak Mor Fall Debbo yaari morfaal yooyu da koo boole moom ndax morfaal debba la ko jëkk a booleel mu ñëw ne ko ki ma booleel déggul tubaab dama bëgg nga boole maag ku dégg tubaab Cheikh Ibrahima jëlaat mool far morfaal fari boole ca ñu ànd ak moom di ko campagnal ak di ko watale kon Cheikh Ibrahima dugg booba ba muy dugg ci mbirum wate ngir bëgg a xam fu sëñ Bamba nekk rek a tax mësta wàcc ba kooka gañee ba mu gañee la dem biroom ndar bind moo dem adresse su Serigne Touba. fa sëñ Tuubaa ne ci maayom ba lépp mu bind ko ba mu àgg ñëw jébbal ko Cheikh Ibra Cheikh Ibra daal di topp doo nag di fa yebal ay ndawam ca la tàmbali nag di yar ay xarit yoo xam ne xarit la biir la di ko rey ndawal gi ñu di ko defar suusal ko mu jënd ay bërigo jënd ay piis perkaal su suusalee ndawal gi ba mu ñor ñu lal euh, piis perkaal yi ci biir bërigo bi ba ba ndimali génn ñu sotti ko ndawal ba mu fees ñu tëral morso yi daal di teg kubéer gi suude tëggam bu ñuy wax bàyyi gaay yaay li moo daan suude bari koy ndawal yi mu di ko yónnee sëñ Tuubaa ca Maayomba kon Cheikh Ibra ba mu amee ngërëm it taxut mu dem toog kongam lu déedéet liggéeyaat ne gannaaw gi loo xam ne lii kenn xamul mu tollu ci saayir ak ci baatin kon bisu Cheikh ra mooy bisub sëñ Bamba rek bisu Cheikh Ibra mooy bisub sëñ Bamba kon bis bi lépp lu am murit man war nga war nga ko def fu murit nekk war nga bis bi su jotee lu la mën a fekk nga bàyyi ko ñëw fii fekk si sëñ Bassirou Fall alxuraan yal na ko fi yàlla bàyyi te wéral aw yaramam ak ay rakkam ak ay taalibeem ak ay magam bàyyi fi magam ju tedd di sëñ Cheikh Jëmb ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gépp kon bi Cheikh Ibra royteef la Cheikh Ibra Fall mooy yoon wi sëñ ba mooy dëkk ba waaye Cheikh Ibra ay yoon wi ku jaarul ci Cheikh ra doo dem ku bëgg am dara ci yàlla faaw da nga roy Cheikh Ibra doo am dara ci yàlla. soo demee ci minanul baaxil xadim téere sëriñ Basiiru Mbakke sëñ Basiiru mi ngay nettali waxtaan woo xëy da ko doon waxtaan ak sëñ daam Abdourahmane Lo te booba sëñ daam Abdourahmane mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at tey naa fi laa di ko def ñaari rakka juróom-ñaar fukki at am ko ba noppi di def rakka alxuraan ñaari rakka sëñ daam sëñ sëñ daam Abdourahmane boobu mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at ba noppi di naafila alxuraan def alxuraan ñaari rakka sëñ Basiiru di ci waxtaan ak moom di ko yéem ci loolu mu ne ko ah man de loolu matumaa man ki ma yéem mooy Cheikh Ibra Fall wala sëñ daam Abdourahmane wax boo demee ci Minanu Baaxil Xadim fe fekk fa lii ma la wax sëñ Basiiru Mbàkke doomi sëñ Tuubaa bind ko mooy woy juru sëñ Muntaxa mii di sëñ ne ko man de ki ma yéem mooy Cheikh Ibra Fall mooy ki ma yéem man ki nga xam moo jóg rek di liggéeyal yàlla di liggéeyal mboolem jullit ñëpp ki nga xam ne la ko sëñ Tuubaa batale woon lépp muy dem ci géej gi matal na ko sëñ Basiiru ma nga cee wax ci téere ba naan mboolem addiye yi nga xam ne sëñ joxoon na ndigal maam Thierno joxoon na ndigal maam Cheikh muy dimbalee maam Thierno ci njaboot gi mu ne loolu lu ma gis la mu yónnee ay addiye yoo xam ne da koy jox maam Thierno borom daaru ngir njabootu sëñ Tuubaa gi ndax booba njaboot yëpp a ci loxol maam Thierno jokku bokk gi mu ko digaloon itam ne ko nga di ma ko defal ci samay bokk ne mu tàmbalee ci Mamor Jaara mi bokk ak sëñ Tuubaa ndey ak baay sëñ Basiiru nee na gis naa addi yu diis yu bari yoom yu mu daal yónnee Mbàkke Bawol ci Mamor Jaara moom moo am Cheikh Ibra Fall kon Cheikh Ibra ñëpp la liggéeyal ngir sëñ Tuubaa kooku nag bisam mooy bisu lislaam jëpp sax laay wax sax jël ne yoonu murid rek jëlle nañ ñu naan Baye Fall rek jullit ñëpp war nañoo ameel Cheikh Ibrahima njukkal amal nañ ko ndax ku ci am koo xay déggal na la sax dañ naan Baye Fall ab diw am déet waaw ku am ko la déggal dañ naan Baye Fall ab diw ñooñu addina sax ku ci am ko la déggal dañ koy tuddee naan bu diw mooy Baye waaye Baye Fall yombut de Baye Fall yombut Baye Fall mooy wacc lépp lu bon topp lépp lu baax topp ndigal loolu mooy Baye Fall Baye Fall yombut Baye Fall amut jot. ndax ci ndigal la nekk du ko génn mukk sëñ Mor Mbaye sama sang ba noon na ma xam nga Baye Fall ma ne ko bëgg naa ko xam ba baax de Cissé moo mooy ku yàlla jéggal ba noppi. sëñ Mor ma ko wax nee na ma balaa nit a a doon Baye Fall yàlla da koy jéggal ba noppi ma ne ko Baye Mbacke nag mu ne ma ku yàlla nar a jéggal moo ma ko wax. te moom laa yaakaar addina ak alaaxira du ma ko dooral sëñ moo ay sama lépp tey ak ëllëg Cheikh Ibrahima bi mu jamono yi muy dem di wër sëñ Touba wax na bi sëñ Abdou Karim ture wax na bés sëñ Abdou Karim Touré ne ko Abdou Karim mu ne ko faal mu ne ko bi may léget bii de sa maam la ma dale Cheikh bi won ko léget ne ko léegi léget bii sa kër maam la ma dale waaye booba kat Abdou Karim damay julli waaye su may julli bu ma ne allah akubar mbooleem ruuxi awliyaa ullaahi yëpp yàlla da koy jóor ci sama kanam ruuxi wali yëpp ci sama karam la ko yàlla jóor ma jàkkaarloog ruux yi xoolal kooku Cheikh bi kenn xamul lu mu doon ko bëgg waaye du ko ñuy xam sëñ Bamba sëriñam bi ku ñuy bëgg la waaye du ko ñuy xam des leen di bëgg rek waaye bëgg nag mooy li am solo sëñ Abdou laat noon na lu nit bëgg su mbëggeel gi wéree loola dañ koy bëgg moom ne su yàlla nag di musibaam kon nañu ko naan ñaan nag mu nar a gannu ca yoon wa nga xam ne bu na ca nee nollu ba ne rakket ak moom amut benn baat muy wax nu budul yaa ibaadi laa xawfun alayhim wala hum yahzanoona kon nan gën a sant bu baax ci bis bi yàlla nañ ko teewi ay déwén yu bari lool te lépp lu ñu ci yëf yàlla na ko yàlla nangu ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ñi ngi leen di sant yéen yéen borom média yi yëpp leen di sant ndax bari na mbir yoo xam ne fa mu àgg rek yéen ko fa àggale kon nag ñi leen di sant bu baax ci taxawaay yi rafet na lool ci saayir ak ci baatin waaye nag man araada an yar faw maa rafaw laa bii irtafa sëñ Tuubaa nee na ku jóg ngir na ma yëkkati lu yàlla yëkkati ba noppi nee da ngaa nar a ko ku jóg ngir bëgg a yëkkati lu mm. a yëkkati ko mm. an yar fa moom maa jële boobu laaw bi in dafa ku jóg ngir bëgg a jañ lu yàlla ñoddi yaay jañu waaw kon yéen ñu jóg ngir bëgg di dolli di yëkkati lu yàlla yëkkati ba noppi muy sëñ Tuubaa ak Seex Ibra jóg nañu te duñ suufe mukk darajët yi taxloo walay sa tan xafil wa man nara naha minal wara xafli xufil daraja ju jóg sëñ Tuubaa nee na te du suufe mukk te ku jóg ci bindaa fan yi ngir bëgg koo suufeel yaay gën a suufe ku suufe saayir ak ci baatin ku ci amit télé yal na am nangami télé ku ci amagut tele du dul di rajo rek yal na am nangami rajo yal na am nangami télé ci saayir ak ci baatin suñ borom yokk fan yi ak wér gi musal leen ci ndok saahir ak baatin defal ko jullit ñëpp nag defal ko taalib yëpp rawatina njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngeen baal